suba samedi wala boog dimanche suba dimanche incha allahu rabbi ah le 28 ku ne xam ne stadium Iba Mar Diop la jëm ak ñaata juróomi million Habib 5 million xam naa di nga ngeen bu bëree ndax loolu boo ko gañee yóbbu ko pasi wala seen dëkk bële jiloor la xaw ma dina baax trop ñu ne déet na waaye le 4 mu ñëw ci lutte avec frappe bi le 4 décembre samedi andil ñu kan caatu Daouda Fall ak Kaw Gourdin ci arène national kon defe naa ne kooku ah mu ngi bay waaram tey nag ñu bëgg ñëw dugg ak moom ci programme suba bi jàpp dimanche euh, euh, prochain wala boog samedi prochain la 4 euh, Jax maa ngi lay ziare. waaw Babacar ñu ngi lay fay di la bëggee bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay yaa ak sa sa xarit bi nga àndal. waaw ak toute l' équipe de Equivox. Mhm. ak képp kuy amateuru làmb. ak ñi leen ñi suivre yëpp ci àdduna bi à travers seen réseau bi waaw. am na solo Diaks defe naa li ñuy faral di jataay bëri na maag yow mais lépp avancement wu làmb la parce que li nga ciy moo tax ñëpp rafetlu ko rawatina amateuru làmb yi euh, defe naa ne am na foo jógee ci benn 3 millions am na foo jëmaat ci benn 5 millions foofu laay muy suba ci dimanche ji incha allah rabbi es jom Iba Mar Diop Diaks 3 3 millions 5 millions 10 millions sa teg nga ko fi dafa am lu bees lu ñu gis loo xam ne dafa ñëw ci li nga njëkk a def muy 3 millions yi muy ñetti catégorie yu bokkul loolu jax lu mu ciy leeral sénégalais yi naka la def ba mbir moomu am ndax moo ko proposé CNG nangu ko wala CNG ko ko proposé mbir ya loo ci mën a leeral waa Sénégal. waaw xam nga ñun saison bu nekk rek ak ni ñuy ni ñuy démarrer euh, lutte simple ñu ngi si bëgg yàgg léegi voilà donc démarrer nañ 3 millions defaat 3 millions su ma jumul andi 5 millions mooy dimanche ba la y deux semaines bi ñuy def cinq millions yi ah ñun xam nañ li ñu li ñu texte yi may ak li nga xam ne am nañ possibilité am loolu du lu bees CNG soo defee mise bu mag am nga droit bind sa lettre xalaat li nga bëgg ñu soppi ko ci yëf yi pour que affaire bi gën a intéressant alors si cadre boobu la ñu gisoon ne bi ñuy démarrer saison bi euh, y avait problème ci affaire u poids ñi fi nekk léegi bëgg a wàññi dindi balance teg ko fee di jël ay poids yu kawe di wàcce di dugal ci ay léger ñu ñu xam na loolu day yàq làmb li muy yàqee làmb mooy xale yu ndaw yi nga xam dañu oyof duñu mbërë bëri ak ñoom ñoom la ñuy daw ba bañ a bëri ak ñu diis ña loolu la xale yu ndaw yi di daw pour bañ a bëri ak ñoom alors léegi pour trouver le juste milieu ñu proposer demander CNG su fekkee mën nañ expérimenter ñu essayer def ñetti catégorie bu ko defee xale yu ndaw yi dañuy resté ñoom seen biir ñoom ñi nga xam ne ñoo romb xale yu ndaw yi te eggaguñ ci ñu mag ñi ñu defal leen catégorie ci diggante bi bu ko defee ñoom ñu bëree entre ñoom léegi ñu mag ñi tamit ñu bàyyi leen ñoom entre entre ñoom noonu la loolu laa leen demandé woon CNG décidé ne loolu lu rafet la nañ ko essayé ci biir essayé bi CNG seen bopp ñoo wax ne euh, luur yi nañ ci jël 32 léger yi comme ñoo gën a bari ci digg bi ñi ci digg bi ñu jël fa 64 ñu ñu ndaw ñoo ñu jël fa 32. noonu lañ tëggee tournoi boobu du 14 bi passé Iba Mar Diop waaw mu nekk une grande réussite amoon ay quelques problème nag ci biir parce que y bokkut beaucoup de diggante ay balance beeg du ñu peeseeg dinañ peeseeg alors bi ñuy jëli poids lu bi ñuy jël inscrire lourd yi alors Sitor Ndour jël liste bi fa nekkoon appel leen ñi nga xam ne ñooy prioritaire te waroon jëkk dugg ci làmb ji parce que loolu lañ daan toujours def ñooñu comme 32 rek lañ jël ñu des fa am ñu mënuñoo dugg ñu laaj ko mu ne moom xamul woon ne 32 la 64 la donc man ma bàyyi parce que man aussi du ma bëgg a insister ci ci yu bëri après par la suite laa dégg mbër yi dañu leen dugal ci biir ci biir arène bi ñu ñaxtu foofu public bi jóg après ne ñeneen nit waxtaanaat ak ñoom ba ñu wàcc ne leen nañ leen ci dolli léegi nag dolli boobu ñu leen ci dolli ñu jógee 128 mbër egg 140 compétition boo doon commencé 6 heures commencé 6 imaginez six heures nga commencé compétition cent quarante mbër loolu moo tax mu tas minuit ñi xamul tenant yeeg aboutissant yi nag di ratatati di wax rek comme l'habitude làmb balaa ngay wax da ngay xam li ngay wax lan la di xam fi ñu koy teg ay làmb yi dafa guddeeg ñetti kër xajul dakaar ak poussière yi nañ def àll baag yooyu ay waxu tàppale la àdduna mm. day dox àdduna taxawul benn place suñu ay maam dëkkuñu woon ci ay taax ay néegu ñax ak gittax lañ dëkkoon koo ci yeewoon tey mu daw ne fii du Sénégal nekk mu fii adduna dafay dox doo taxaw rek na nit ñi poussière la àll ba la ñu war a ne ba màgg door a ñëw loolu mooy xul lan Dakar mooy lan ñun ñëpp a ngi Dakar nga sànni leen àll ba ñoom lu ñuy dunde ñu yaakaar làmb nekk xale du dañu war a ja tàggat leen ba ñu màgg ci tàggat boobu du waruñu for dara ah. kon su ma la déggee Jax maanaam moom li muy def in dafa bëgg ñëpp ku ci ne am loo ci gañee maanaam intérêt général bi ngay carte mais yow carte loolu rek pour benn groupe war a nga teg benn 5 millions ñaar ak séddoo ko rek dem seen yoon mu des beneen catégorie quoi yow da nga ñëpp am dara. ay teg sa 5 millions pour jox ko benn nit ñaari nit ça ne m'intéresse pas ñun làmb lañ bëgg mu dox làmb buy dox ku nekk daf siy for di si gis boppam ci yoon bi mais bu nekkee benn catégorie nga ko jox ñu dem ñeneen ñi kañ la ñuy jot ci catégorie boobu. bu fekkoon làmb tey làmb dóor bi par exemple bu doon Balla Gaye ak Modou Lo ak Gris Bordeaux ñooñu rek fi nekk kon làmb na dem ñaata booy ñooy bëri ci saison bi ñoom ponkal yi ñoo gën a tuuti li ñuy bëre naam ñoo ëpp seen ay cachet mais saison bi yëpp boo compté bu dee cinquante jours rek ñu ndaw ñu ñoo bëri 45 yi alors ñooñu doon bëri cinq bu dee jotuñu dara fu nu muy sottee lutte simple bi tamit même chose la. tax nga ni raw gàddu ndakaaru du a wax tànk xawma nu na l'essentiel groupe bi waa CNG ne million millions 500 mille nañ ko jox luur yi kooku c'est très bien mi 1 million mille nañ ko jox ñi ci topp muy lu baax 1 million nañ ko jox cuuci cuuc bu am 1 million kay looy waxati da ngay ndaw gën a kontaan ne kii ma ne ñi may ñaanal ci lii ñi may ñaanal ci lii mat nañ mili ay centaine de million su ma juumam naa ay centaine de mille de personnes mbokk mbëri yu ndaw ndawaan yëpp ñu ngi may ñaanal parce que gis nañ ci gis nañ ci seen bopp alors du fukki nit ñooy ñëw taxaw fii di wax voilà. am na solo mais loolu moom defe naa leer na nañ ko ndal mbir yi daa bëgg ku nekk gis sa bopp tey tey itam nag noonu la war a def sax demee nag ndax comme li mu wax defe naa ne avancement day am ci lu mu mënta doon léegi ci biir avancement boobu dama gis nga jóge ci 3 millions. deux semaines ñu jëm si troisième semaine bi wala deux deuxième semaine bi ngeen di cinq millions de plus deux millions ci kaw trois millions yooyu te même arène te même stade bi looy muy stadium Iba Mar te xalaat naa mu feese woon noonu lay feesewaat Jax te deux millions yi ci tegaat Jax nu muy gagné xaalis ci li simple parce tamit jaaxal na nit ñi te gisuñu ngay ànd ak sponsor gisuñu ngay ut parrain lu xew. man amateur yi ñooy sama parrain. est-ce que nga loolu. amateurs yi seet déplacé di seet na sama lamb man ñooy sama parrain man lijjanti ma affaire parrain intéressé wu ma ça ne m'intéresse pas ka ngay jël parrain mu ñëw sa journée fekk mu fees del mu yëkkati mbagg xoggaliku du la jox dara lu ko jar daf ko jar amateurs yi ñooy bi gis ko mu fees del <laughs> alors kon amateurs yi parrain bi ñooy feesal stade bi ñooñu ngay proposer produit bu boo xam ne moo leen intéressé ñuy ñëw seetaan si hmm. voilà nga gagné dugalaat ko si man noonu laay doxee kon boo amee bénéfice su ma la dégg da nga koy dolliwaat. dolliwaat man noonu la boobu xoolaatee da bëgg nga delluwaat ay année ci ginnaaw man sama mise nii rek lay def cak cak cak cak cak booba may arrêté ba déwénaat damay jël di dugalaat ci biir rek muy mhm. gën a saf. puis <laughs> su ma la di su ma la déggee kon eh, kon ci côté ticket yi xanaa kon bii di nga yokk ticket yi comme deux comme cinq millions wala. yokk ticket lan da yokk ticket baaxul dëkk bi dafa metti les gens n'ont pas de même bu ñu bëggee amuñu. du setaan làmb rek moo fi ne da nga war a lekk da nga war a naan da nga war a yónnee dëkk ba da war a jënd ay bagages attends bu fekkee loolu ñu defee ne leen ne 5000 entrée mais da nga nit ñi bëgg nañ mais amuñu te ñoom ñooy amateurs yi loolu mooy coow li bu doon dañu am jàppale. mën nañ ko sax billet 1000 francs billahi wallahi su doon jàpp am na dëgg sponsor yi wuyuñu mën nañ sax ne gratuit dugg leen sponsor fay na ko billahi wallahi mais nag loolu yëpp amul. kon ticket yi ñaata su ma la déggee. la ne woon rek 3000 francs entrée loge bi 5000. fu waay toog 3000 ba mu des loge bi loge rek ay 5000. loge bi rek ay 5000. ah noonu la noonu laa mos a def nañ ko defaat noonu rek yàlla baax na te ñoom di ñaan di jàpp ci jàpp rek. incha allah <laughs> waaw léegi li simple boobu ba tey parce que su ma jumul maa ngi dégg sax ñooy wax naan yaa ngi waajal benn mise xaw ma 10 millions ou bien plus de loolu loo ci mën a wax. ah waaw 10 millions bu ñu ko tegee moom il faut billet bi yokku. ñu ngi ciy xalaat nag waaw bu ñu nee 10 millions Iba Mar Diop jéewi dina nekk 5000 te bu ñu ko naree def il faut nit ñi waaj ko il faut mu nekk combat journée boo xam ne da nga koy waaj ne par exemple day am dans un mois nit ñi xam ne dans un mois la 10 millions bi na ñëw dina am par exemple 31 décembre wala 1er janvier day am 10 millions léegi fii ba boobu ñu ne ah des na 5 semaines bu ko defee gaa am possibilité chaque semaine kenn ku ne jël 1000 francs def ci benn boîte potu Nescafé tëj. boo ko defee juróomi semaine am sa 5000 daal di seetaan sa làmb kontaan champion yëpp ñëw <laughs> mais wax waxaguñ ko nag ñu ngi ci xalaat waaw waaw. Euh, mais dinaa ñëw ci côté parrainage bi parce que ne nga am na ñoom ne comme parrain yi tey mën nga leen tudde bés ñu ñëw fa kii jàppal baay te duñ la jox lu ko jar est-ce que Jax ba muy tëgg làmb ba tey nit mës na jéem a impose wane wu pour mu parrainer ko bés wala yu mel noonu. non man parrain naa fi ay nit joxuñu ma dërëm du ma leen tudd nag dërëm sama xaalis dépensé. dépensé defari drapeau defar lu nekk dem seen defar leen face à face ak yëpp zéro ñu dig lu ne après gisuma leen sax mais bon c'est ça la vie àdduna noonu la am na ñoo xam ne ma leen parrainé parce que maa bëgg a yëkkati seen tur ay mag lañu liggéey nañ ci làmb yàgg nañ fi kenn mosu leen faale ma parrainé leen tudde leen ak ñoo xam ne def nañ fi ay jaloore en tant que lutteur ma ñëw parrainé leen tudde leen jël sama xaalis joxaat leen ñu def seen dépense seen kër transporter ñëw yooyu yëpp man maa ko def pour rafetal pour pour pour jàppale leen ci làmb mais parrain yi ñuy wax nii ces gens de politiciens là ces gens là non ma loolu. kon politiciens yi xalaatoo cee carré parrainé kenn sa bi. Ah, xanaa ku ñëw pour taxaw man daaw defoon naa benn programme boo xam ne parrainage la tudd ma ma soumettre ko euh, au ministre Ba je le salue au passage mu accordé ko mais yàlla def na mu jëwul sotti waa ah, dama na doon dem si région yi région bu ne ma tëgg fa benn làmb mais nag personnalité ba mu ma doon booleel mooy financer làmb jooju man du ma si def sama dërëm mooy financer mise bi. frais yaag tout pour waa dëkkam mayee ko kenn du fay loolu laa bëggoon man def yàlla def mu jëwul antu xam nga loolu da doon doxal làmb si kanam ñoom ñooy politique seen ay région man su ma egsee en tant que Jax production sama tur ñu ne Jax production egsee na Kolda par exemple ku mel ni maam Boy Diop wala keneen keneen keneen jël galaa bi frais financé ko yëpp may ko dund Kolda ñëpp génn kontaan ñu pare ñu lam suñu bagage dem nga liggéeyal ko làmb ñoom ñu profité aussi politiquement parce que ñoom ñoo ko financé loolu laa naroon def mais mu jëwuloon antu waaw. Jaks mës na tëgg lutte simple perte ci. waaw bañ a perte perte da perte di gagné waaw perte du benn du benn du ñaari yoon plusieurs fois mais perte ak am su ma waree perte naa ko su ma waree gagné xam naa ko. Ah, waaw bi ma tëgg xam naa damay perte wala damay gagné. balaa moo jeex. déggoo li ma la balaa may commencé sax xam naa damay perte wala damay gagné. loolu noo koy xamee looy étudier la wala. expérience la nag yow tamit. expérience la daaw rek tëgg naa fi làmb joo xam ne <laughs> vingt personnes sax dugguñu fa fële Pout dara musuma fa dem tëgg naa fa làmb mais expérience très bien làmb ju neex sax ci man gisuma kenn te amoon na pare parrain bi yónni ñaari nit andi fa benn cent mille francs imagine fekk ko ci dëkk muy meeru dëkk nga nangu drapeau ñëw ñu andi drapeau moom mën a nangu ñu andi ñëpp Baye ak ñëw dëgg fa làmb ju neex sax ci man neex parce que le fait que amul public ça m'a permis ma toog fenn di déglu way yi ak tëgg yi di seetaan mbër yi dama apprécier keroog làmb ji musul lu ma musul dal parce que dama amoon temps maa ngi toog ci kaw déglu di déglu way yu neex tëgg yu neex ba final seetaan <laughs> loolu musuma ko def fenn moo tax ma ne làmb dafa neex ci man parce que permis ma seetaan mais jaayuñu sax 200000 francs am na solo parce que mbirum parrainage boobu bërki démb defe naa dimanche ba lay passé rek suñu rakk jamaïcain ñu koy nuyu en passage mu ngi def liggéey bu am solo moom tëgg na fi làmb tuddee ko euh, euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Lat Diop bu Lonas mais gisuñu parrain gis ñu délégation te def na ca la ko waroon lépp ah, te itam ca la ma nangoo ci ñoom mooy parrain ba jot na mbir ya maanaam nangu na accordé na woon affaire ya mel ni kon yéen promoteurs yi kon jot na xanaa balaa ngeen di joxati nit bés ngeen jàngat ko. attention hein man gis naa benn journaliste ñëw ci écran télévision bi di wax loo xam ne waru ko wax ci kilifa dégg nga fi may waxee. bi mu tasee ñuy laaj jamaïcain muy wax am na journaliste bu ñëw jël micro bi. wax ci lu mu ci warul wax kilifa kilifa la bu la nit diggee tamit mën na am lu xew ba ñëwul da ngay teey ba nga gisaat ko loolu moo gën a rafet mais doo ñëw ci tele diw ah tudde nañ ko suñu làmb lii lii lii lii lii ñëwul jaxewul yónnewul loolu rafetul rafetul nit ku nekk na xool li muy wax ak li muy def laxaat jóob bu ko nee d'accord naa tamit problème yi mu nekk biir LONASE moo ëpp doole ay làmb parce que dégg fi may waxee laxaat am na euh, LONASE amul problème un milliard et quelque yu ñu fa détourné kooku tal nay làmb est-ce que tal nay làmb nañu xool li ñuy def ak li ñuy wax voilà diggoon na ko peut-être man fekkew ma digg na ko wala diggu ko yàlla def ñëwul nañ ci tey ba mu gisaat ko si jàmm li mu tëggul jamaïcain du benn làmb lay tëbb ci tëgg si saison bu ko rëccee boobu tamit mun nañoo gis waat comme ne ko ah lii de moo taxoon ak nii ak nii nañ ko defee nii fekk ñaari yoon ak ñetti yoon ñu jubboowaat moo mais taxaw si télé bi di ŋàññe nit loolu rafetul si koo xam ne dafa taxoon pour jàppale la parce que man xaw ma kuy laxaat jóg mais je sais que day jàppale nit ñi à géejewaay ak yooyu loolu laa dégg ci moom alors j'ai pas apprécié que nit taxaw di ko sànni ay xeer comme ça te xamuñu ban situation lay dund am na solo macha allah kon leer na macha allah léegi ma ñëw ci lit frappe boobu lay continuer ak yow mu mel ni yaa ngi jëm ci journée euh, le 4 diggante Thiat Daouda Fall ak Kaw Gourdin combat bu ñëpp bëggoon keroog def nañ face à bi. loolu yéen seen combat la yéen ne combat espoir yi de la saison loolu la yàlla def loolu la ñëpp d'accord ñoom ñaar ñooy daje combat bu neex bu soobee yàlla incha allah loolu laa yaakaar yàlla ko yàlla def. keroog def nañ signature biir Equivox xale ya nga copte wala yay as copte mu nekk signature boo xam ne xale yi ñoom ñëpp ku ci ne la ngay pare te xale yu yuri mbooloo kese laa fa gis xale yoo xam ne ku ci ne mbooloo lay topp. yaa xam xale yi man xaw ma leen as yéen yéen a xam affaire xam nga yéen yéenay dugg fu ne yenn xam booy mais boo yooyu kenn ku ci nekk rek am na si boo yoo xam ne dañu ne bu dañuy ñëw ne bu ma bu ma bu ma bu ma grand combat ëppale sax bu ma fay ci xale yu ndaw a ndaw nga xam ne dañuy jël décision mobiliser sérieusement ñëw bëre neexal làmb ji. yàlla nañu yàlla may ñu fekke ko ak tal ko waaw te yaakaar bañ a tas. <laughs> kon la kaat yàlla nañ ko fekkee te tal ko te yaakaar bañ a tas yàlla bu yaakaar tas waaye sa diggante ak as moom parce que gis naa ne as ak ñeneen ñoo xam ne yaa ngi liggéey ak ñoom sa la as mën naa ko seeti ci lutte avec frappe bi damay gis ne da nga koy jiital ba pare mais bu mbir yi jotee moom nga koy bàyyee duñ la gis fenn loolu lan la confiance bi lu ko lal. no man loolu sama habitude la da ñëw ci lutte simple est-ce que da si biir. duut ñaan gis ak Baye Fall ak gaa demee ci lutte nga fay fekk ak ñoom euh, euh, Ablaye Diouf ñoom je les au passage ak xale yi nga xam ne ñoo ñoo di si jàpp comprendre nga boo demee lutte avec frappe à sa fa nekk ak ñi mu àndal ak ñoom euh, Modou Anta ak bu ma fàtte Basirou fële Wasaare sama sama pub yëpp moom koy defal waaw ah, Basirou ñu koy nuyu bu baax bas bu mën liggéeyam macha allah waaw ah. donc ak yéen ak yow ak ñeneen ak ñeneen yéen ñëpp yéen ñëpp daal man vraiment yéen ñëpp sama ay ay booy ngeen donc euh, yéen si jàpp mhm. bi ñuy monté combat yi tamit léeg-léeg kii wax la le keneen wax la le ma ne as ah, ah, kii wax na li kii wax na le mu ne non non que lay gën donc noonu mais franchement ah bu la kaatee ñu waaru la ko wax de mhm. <laughs> comme gars yi danañ loolu la ñuy kii ah, jamay keneen mooy roi de Ibamar. waaw jamay keneen mooy roi de Ibamar. Assane Ndiaye <laughs> na ma yow yaay roi de lutte man maay roi avec frappe Ibamar. <laughs> léegi man tamit damay ut waaw arène nationale neel Fallou Ndiaye maa ngi ñëw ci kawam ak sama xiir. ah kon yow ca Fallou nga jëm ndax Fallou mooy roi asa arène nationale sama xiir laay egsi ci ginnaawam nag. loolu du mbooloo tax ñu koy muy échelonné di échelonné di bëre di dem ñu koy jox muy jàpp ba mu egsi fii mu egsi. mais journée yooyu taglantoo boo ñëwee la 4 bët set Pape Abdou ñëw le le le mu mel ni kon amateur itam foofu dinañ doyal làmb de te lamb yëpp na a neex. lamb la. mun a nekk même jour mais nekkul même jour man lijjanti ma yooyu de ku nekk ak programme am tànn sa bu la neex la ku mënul dem fee dem fee fii ay làmbu xale kese la fële làmbu ku bëgg a monter la ak koo xam ne bu ngi jeexal voilà les gens choisissent waaw choix la rek. mu ngi noonu. saison bi macha allah 2021 bi moom xam naa ne mën na tëjee dina neex parce que même décembre bëri na lu ci war a xew gis nañ bëri ki démb combat ne ñu ngi ko doon def face à face muy Tapha Tine ak Boy Niang far yàlla dogal na yeggul la tax nag yeggul na promoteur ba mu xam na ko. ndax itam am na loo xam ne moom rek moo ko mën a xam yooyu tamit di faral di am ku mel ni Pape Thialis Faye moom nga xam ne boobu ba tey taxawal na làmb ji làmb ji à tout moment bu ñu defee face à face mu yàqu yow en tant que promoteur bu amoon tey conseil boo koy jox ban conseil lay doon. boo bëggee dëgg étudier làmb ji rek boo étudier làmb ji ni mu demee ñi fi tëgg combat yu mag yëpp dañu am problème. lu leen di problème. ah xaw ma ko xëy na crise bi la yàlla crise ñun ñu ndaw ñi sax am nañ problème mais ñi ëpp problème mooy ñi tëgg combat yu mag parce que finance bi mu laaj ak ak li mu laaj jumtukaay yi mu laaj neexul matal boo xoolee ñu ngi reporté combat yi par benn benn par benn benn. ñoom ñoom Gaston Mbengue seen combat bu mag bi euh, bomba euh, nu mu tuddati Bombardier waa ñaata yoon lañu ko reporté deux fois deux fois le 7 le 28 daal di dem dem le premier kenn xamul sax na dina am le premier kenn xamul yàlla rek xam. moom xam naa ne làmb na ko tëgg le premier bu soobee. yàlla rek a xam dégguloo ñu ngi waaj reporte reporté euh, Reug ak waaj lu leen daal mbëri lu leen daal dara dalu leen. Reug Reug kii ñu ngi waaj a ak guy gi. dégguloo ko dégg déposé nañ lettre CNG. pour reporter ko reporter. ku wax ku def loolu. GFM yëguloo ko. en maa ngi ci lam mais nag tey yow lay laaj man kay xam nga <laughs> man dama laa laaj si. déggoo li ma la wax ñu ngi waaj a ko laa wax pour mu dem février. loolu na waar di. Ah, doyul waar dafa metti maanaam kon financièrement affaire dafa metti ci promoteur yi. damay wax lu ma xam mais daal xam naa ne. combat yu mag yi am na problème yu si ne daal reporté bi bari année Luc Nicolaï moo grand reporté na marche parce que li affaire yi laaj moo metti Mama Lamine Garga Dëkkin Mama Lamine Garga Dëkkin déggagu ci dara ah waaw Mama Lamine Garga c'était le 11 yéen yéen fa ne yéen a ma gën a xam waaw Vox naa man Equivox laa ne de Vox Arena ak Equivox benn la rek <laughs> waaw ba tey maa nga bi ndax mënuma caa génn six mooy neuf bu ñu ko dëgg mooy sama DG mooy Seck maa ngi koy ziar ak ñoom Badou ah mu nga nga boobu tamit kenn waxagu ci c'est le 11 tey la lan 27 27 ba 11 ñaata jour la 13 jours xam nga 12 jours 12 jour dafa publicité def ko dara ah xaw ma nag am naa moomul de en tout cas ku nekk ak façon bi ngay liggéey. kon xanaa bu ma la déggee tëgg combat yu ndaw yi ñu moo gën a oyof. ah moo gën a oyof kay moo gën a oyof tëgg ku ndaw ak tëgg ku mag du benn. xaaral nodd bi daanu ñu da ñu ñu ñu jeexal. mu mel ni kon Jax daal lamb ji metti na waaye nag ñu ngi masaw promoteurs yi parce que tamit ay jàmbaar lañu parce que au moins ñu ngi jéem a def effort pour di tëgg ay lamb yaa ngi dégg defe naa lool tamit lu am am solo kon defe naa dafay jaaru tamit ñu gën leen a jàppale xëy xëy na jàppale leen du question dañ leen jox ay millions ndax yéen a ngi liggéey mais xëy na mooy fexe ba ngeen am ay sponsor ngeen liggéey ci lool tamit parce que defe naa bu ngeen amee sponsor lu bare bare bari dina faju ñàkkum sponsor moo moo andi yu mag di am sooxe moo ko indi parce que bu njëkkoon da ngay gis sponsor dañuy dégg jël ay 100 millions fii ay 50 millions fa lay lool donc boo organiser événement bi mag ñu daw ñëw si yow wala boo ñëwee si ñoom ñu gaaw la ko rafetal de telle sorte que yow da ngay am possibilité am ay moyens yoo ko defee égalé mais yëpp mënoo ko jël sa poche rek def ko même boo ko amee sax def ko gënul donc loolu mooy dif principal difficulté bi depuis quelques années boole ak ñëw nag Covid bi ñëw duggaat yàq àdduna bi andi fépp société yi doon yi doon def pub sax déggatoo ñu def pub parce que ñu ngi ci ay jafe donc làmb ji tamit c'est moo tax boo ko seetloo ay ay booy yu ndaw la gaa yi di tëgg ay ay ay ñu ndaw ndawaan la ñuy jël def leen grand combat loo xam ne yaa fukki ci ginnaaw mosoo xalaat loolu ba danaa bëri 14 15 combat te du am grand combat parce que euh, làmb ji ni mu tegee woon la mais léegi da gis mbër bu am ñaari fan ñetti fan ñeenti fan ñetti combat ñeent rek ëpp parce que am na mbooloo ñu tegal ko grand combat xam ne prix bi aussi eggul fenn loolu daf si am solo moo tax promoteur yu mel ni man ay ñoom Fallou ay ñoom euh, euh, Assane Ndiaye que je ak ñoom jamaïcain ak gaa yëpp hmm? ñooñu si boobu niveau lañ nekk di dox foofu ci fil ah, boobu fi ñu attan ah, ah Assane du jéggi woon na dem dellu si waat na xam na non je te <laughs> ñeneen ñi fa ne ah duñ nelaw guddi duñu nelaw guddi laa la wax. sëñ Modou ñaari daan naa ko dégg mu ne bu ndaw te sedd ma gënal bu rëy tey mit sëñ mu ngi fa mu ne rek sëñ Modou fa mu ne rek la nekk. di liggéey liggéeyam balu si coow benn période at ci ci carrière am la yéegoon mooy période Ablaye Wade nga xam ne mën na jàppale mais ba loolu jeexee la wàccaat niveau mu tax di liggéey liggéeyam calmement zéro stress saa yoo ko gisee mu ngi rafet naay sañse ba rafet ñëw toog di seetaan mooy grand boobu sama grand maa ngi koy saluer au passage waaw non amul benn problème moom amul benn problème donc maa ngi saluer pour promoteur yëpp voilà di leen ñaanal yàlla aussi bien en frappe qu'en simple waa simple yàlla ñoom moyen parce que man kenn nekkuma fi man maa ngi tëgg fii Dakar mais bul fàtte du man kese Yaxya Jóob Yékini mu ngi ci àll bi di dóor ay 3 millions yu dul jeex. Fata production. voilà tey boo naan numéro un da nga naan Yaxya Jóob après nga ne Jax mhm. parce que du point de vue développement lutte moom mooy liggéey luy développer lutte parce que moo nekk ci àll bi mhm. di dem dëkkoo dëkk te loolu yombul dafa metti man maa ngi fii ci capital bi rek toog donc. maa ngi ko fi maa sax ba Mali. déggoo li ma la wax mooy un man maay numéro deux waaw yàlla yokk moyen yokk moyen aussi ñoom Luc Nicolaï parce que Luc aussi ñun ñoo fi nekkoon maag moom mm-hmm. boobu yaxee sax tëggagul mm-hmm. moom mu daan dóor ay grosse mise aussi yooyu yëpp waaw ak ci ak Dakar yëpp voilà loolu yëpp loolu yëpp làmb namaat na ko mm-hmm. dégg nga wax ji yàlla jox ko moyen joxaat ñu ko jox ko ñeneen ak yeneen xale yi nga xam ne ñu ngi fi di ñëw yàlla jox leen moyen ñoom tamit ba ñu mën dem ay 20 30 40 ba 50 millions affaire bi loolu laaj daal ñun dañuy béy suñu waar rek mais ñun léegi ñu jeexal génn ñeneen continuer c'est ça la waaw kontaan naa si yow. non maa la raw maa la raw vraiment maa ngi bëggee si yow bëggee gaa yëpp quoi yal na yàlla defal ñu jàmm et eggal ñu ci événement yi te def yëpp mu doon succès ndax succès mooy tax nit ki gën a am courage pour continuer voilà merci. mu mel ni kon noonu la demee ah dégg ngeen Jax lim wax am na solo trop defe naa ne leeral na lu bare bari ci lutte simple bi ak li ci am ak taxawaay bi nga xam ne moom la ci def ak tamit lu mu CNG ba ñu nangu ko def naa loolu ku ne war na ko mën a nangu ah parce que tamit bu ñu tegee benn misu 5 millions vraiment ñu fexe ba ñetti catégorie am ku ne am loo ca am defe naa loolu moo gën a yell que ni ñu def ko rek benn 5 millions bi ñu teg ko ñaar ñaari mbër yóbbu ko day metti defe naa bu ñu ko tasee les ñi gën a tuuti am ci ña ca digg ba am ci ñi gën a mag am ci defe naa loolu day nekk lu baax a baax kon li mu wax rek la ñuy wax ñun ñu ngi ñaanal promoteur yëpp réussite ak ndam mais tamit di wax encore une fois rek Pape Thialis Faye ne ko suñu frère nga sénégalais nga comme ñun développement Sénégal lan yaakaar ne moo la ñor mais daf nga bërki démb loo xam ne nii jëmale ko ci ñun presse bi rawatina presse en ligne bi rafetul jekkul jaaduwul te li ko waral lenn la nit boo leen di wax da nga leen di wax li ma a ne ak li ne ñu xam ko ndax boo ñu invité ko woon boo ñu boo ñu woo woon Iba Mar Diop duñu fa ñëw wax dëgg yàlla mais nag yaa ñu invité pour ñu ñëw pour loolu pour lan la pour communication ci sa làmb tafaatin booy ñaar ñëw nañu laaj heure dugal vidéo ngeen wax ñu heure 23 heures dem ba benn moment ngeen nañu non une heure du matin xaw ma ba ñuy dugal vidéo yi boo xoolee 2 heures jot na ñii 3 heures du matin ñii bët set ngeen jël vidéo yi supprimer ko yemu ngeen ci dul ñu avertissement tëj ay compte jàmbur te loolu defe naa ne àq la àq nag baaxul nit du tooñ ku dul tooñ mënoon ngeen ñoo wax nañu ñu heure bii ngeen di dugal ñu dugal pay per mu ngi fi am bés bu ko defee daf ñu naan heure tel ngeen koy dugal ñu dugal ko fa parce que boo la ko waxee boo wàccee yoon wa yow yaa tooñ kon nag loolu bàyyi ci xel xam ne am na loo xam ne ni ay tooñ la te àq la te loolu jaru ko parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi yaa ngi dégg te lépp dafa war a rafet di ñaanal ñëpp jàmm di kontaan ci Habib mi nga xam ne moo newoon ci caméra bi ak montage bi di ci Jax xam ne moo ñu dalaloon tey di jox yi dig daje beneen yoon incha allahu rabbi